dañoo fas yéene am solo. mbokki téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen ziarate di leen ñaanal ci jàmm di ko saxooti ci yéen tey nag ñu ngi mardi 22 juin. 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem seetaan li nga xam ne ni moom la yëglikaay yëngatu ci wàllum làmb indi tey. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mardi 22 juin 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko. yëglikaay bi di suñu làmb tey xëtam mu nag xëtam mu njëkk lëm ca xëy fesal lenn la maanaam li nga xam ne nii moom moom ay ay yàq la maanaam ay sakaas fa nga xam ne nii moo doon ca arène nationale ba ci dimanche ji nu génn yëglikaay bi nag ñëw na ca tey ak photo woo xam ne wu fes a la ay sees yoo xam ne dammati nañ ko mel ni ki nag mu tax nag yëglikaay bi xëy tey sampab laaj di laaj léegi nag nan la ñuy def ban solution la ñuy wut ngir lii nga xam ne nii moom la xale yi jógte di ko def ci arène bi ku ñu ñu daan sa mbër ngay yàqate lu ñuy def ba saafara ji jàngoro mel ni ki nag góorandooy ma nga xam ne ni moom moo jiite les jeunes amateurs daal xëy na di ca wax moom góorandooy nee na daal ñi nga xam ne nii ñoom ñooy def jëf ju mel nii li ñu war a def mooy kuñ ci jàpp ñu defeere la tëj la ci kaso bi yar la jubbanti la ba nga jubbantiku commandant Thioune tamit wax na lu mel ni ki noonu moom tamit la ma gis la daal ne sécurité bi nañ ko gën a yokk bu baax a baax Gaston Mbengue di ab promoteur ba tey xëy na di ca wax nee na daal maanaam mbir yi fokk ñi koy def ñu teg leen ci yor ba nga xam ne nii daal dinañ maanaam punir leen sévèrement ba nga xam ne daal bu ñu ca jógee dootuñu xalaat lu mel ni ki noonu mel ni ki nag soo bëggee dégg-dëgg moom maanaam yemu ca xam ne leen sax daal la cay des si mooy di leen présenter procureur mu laaj leen ñoom lii ñuy def lu tax ñu di ko def bu laajee defeere tëj ca kaso ba ñu def ko ndax nag kenn du defar ay xale yu ndaw di ñëw di ko yàq loolu mooy li nga xam ne ni moom moo nekk tey ci xët wu njëkku yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb mel ni ki nag yëglikaay bi ñëw na tey ci sunu làmb ci combat boo xam ne ni war naa am war a dox ci diggante Sa Thiès ak Moussa Ndoye Malick Niang mu ngi cay wax Malick ñaa bu yoof ne na ñoom ñaar daal loo ci mën a dégg ay guerrier pire la ñu moom Malick Niang nag bëri na ak ñoom ñaar ñëpp Moussa Ndoye démb def na open press am bi xëy na tey ñëw ci moom daal mu ngay avertir Sa di ko wax ne daal pare na pour li nga xam ne ni moom mooy waree a bëre bëre pire Moussa ne na pare na ci xeex itam nee na da caa pare ba yegg ci lool keneen koo xam ne fi mu nekk nii maanaam maanaam kombaam la yëglikaay bi xëy tey ñëw ci moom muy maam Balla mi nga xam ne ni moom mooy borom top 5 digganteem ak mbay guy digganteem ak mbay guy gi la 4 juillet yëglikaay bi ne daal pour maam Balla ah defet moom dañ ko koo interdit ci bés boobu nga xam ne nii cëla jëm sunu làmb moo xëy tey dikk dinu wax lu mel ni ki kenn koo xam ne nii moom dafa bëree ba ñu daan ko muy Tyson 2 yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci di laaj moom fi mu nekk nii nag ginnaaw samedi la ko Franc def léegi moom wan yoon lay awaat yëglikaay bi tamit ñëw na ci kaw ko def muy Franc ak di combats yoo xam ne daal maanaam am na ko dix victoire moo tax sunu làmb sampab laaj di laajte nag Franc mi léegi moom kan moo ko war a mën a arrêté téye ko ba nga xam ne ni daal dina ko téeloo dina ko téye ba dootul dem yëglikaay ba ñëw na ci lu mel ni ki noonu waaye yemu ca de ci biir sunu làmb buñ ci duggee tamit mel ni ki weekend bi itam nar naa yëngatu ba yegg ci lool ndax nag ku ne xam ne ne dimanche 27 juin Youssou Ndour ak nga xam ne moo di Bébé Diouldé dañuy bëri arène national ca bés booba itam fa nga xam ne moo di Mbour assurance ak Gambien dañ fay bëre ka ko tëgg moom moo di Sidi Jaxate yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu moom sunu làmb buñ fa jógee fa ñuy dem moo di ca les arènes les arènes nag moom la mu xëy tey dinu ko indil lenn la maanaam ay mbëri simple yi nga xam ne fi mu nekki daal soo bëggee dégg dëgg let avec frappe ba ñu ngi cay dox de te itam dox gañ cay dox gu leer naññ la fa ñu teg seeni tànk daal leer na indil ñu rëg-rëg ak franc loo ci mën a dégg yëglikaay bi nee na wallum technique compétition physique maanaam daal ñu ay mbër lañ yoo xam ne fi mu nekk nii explosivité itam boole nañ ko ci seen ay mbir muy ay mbëri mbapat yoo xam ne fi mu nekk nii daal ñu ngi wane seen bopp ba daal respecté leen moom ci lambi simple di du mën a ñàkk moo tax am na ay techniciens yoo xam ne ñu ngay wax ci mbëri simple yooye ka nga xam ne nii moo di Ambroise Sarr la moo xam ne daal nee na kii nga xam ne nii moom moo di wala boog mbëri simple yooyu daal ne loo ci mën a dégg ne na la ñuy def muy jugé ba dañ ko maîtriser lool lool moom Ambroise Sarr gis-gis boobu la amee ci les arènes ca biir yemu ca ba tey les dafa dafaat na beneen taxaw seetlu nday ku ma faa la ko def la mu xëy xam ne daal ki nga xam ne moo di rëg-rëg moom mais na boo boo bëggee dégg dégg daal at yu mujj yi mu ngi wane boppam Franc tamit confiance ba mu boole ak état piir bu doya doy war Serigne Ndiaye 2 tamit mu ngay ñëw ndànk-ndànk di fëgg la nga xam ne moo di buntu mag ñi mel ni kon daal mbëri simple yooyu ñu ngi commencé di wane seen bopp yemu ca moom yëglikaay bi dalal na Amadou Kati seq moom ay wax laaj ko ci Amadou Kati Diop lam ko xamal moom entraîneur Fass Ndakaaru ba nee na kii nga xam ne moo di Franc day maanaam boo bëggee dégg dëgg Kati Diop nee na loo ci mën a dégg valeur sûre la boo xam ne daal bu wóor la ngir làmb ëllëg ngir itam maanaam ñi nga xam ne dinañ téye lamb kat yi daal ne na ku yebu bàyyi ko xel moom moom Franc ndax nag la muy def teg na ko ci aw yoon te itam man na ko ba yegg ci lool lool moom yëglikaay bi loolu la ñu xëy wax ba tey ci biir yëglikaay boobu Ahmed dem mu caaroy comme moom ak Valdo Ahmed daal la mu xam ne daal nee na li ma bëgg maanaam su may bu ma delsee daal bu ma ñëwee ah dinaa mel ni bomb boo xam ne dañ koy sànni explosif daal laay def man Ahmed dem loolu ay wax xam la ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb ba tey wala boog yëglikaay bi nga xam ne moo di les arènes ba tey bu ñu continuer ci les arènes entraîneur ba nga xam ne nii moom mooy bu Fatick ba ak itam at yi nga xam ne neexle wuñ ko moom ba fa géey nag mu nga xëy tey seq waxtaan wu yaatu ak Ndeye Kumba Fall ba fa daal nga ne li mu xam ne daal nga ne fi mu nekk nii daal liggéey lañuy ñuy gën a def ngir nag jéem a dajalewaat équipe bi defar ko équipe nationale ba nga xam ne daal bu ñu demantee ci ay compétition danañu gën a wane seen bopp bu baax a baax a baax ndax li ñuy daj ci at yi moom maanaam neexut te itam bëgguñu caa continuer kon liggéey faw ñu yokk ko def ko lu mu laaj danañ ko def ngir am ay résultat yi gën keneen koo xam ne nii moom xale la boo xam ne ci lam làmb ji la nekkoon di bëree yëglikaay bi ne na 2015 daal ba mu bëree ba bët set ñu koy wax ka nga xam ne ni moo di frontière nee na ba mu ci jógee daal loo ci mën a dégg ca la ko AVC arrivé boobu ba tey mu ngi tëdd 2015 ba tey moo tax nag yëglekaay bi ñëw na ci moom les arènes tey xale ba nag la muy demandé mooy soutien daal wala ku ko jàppale ci wéradéem googu ka mu woo nag du kenn ku dul ki ne ci boppu réew mi jiite ko te yilif ñëpp muy le président de la république monsieur Macky kon monsieur Macky boo yeboo nga gestu xale bi ndax nag xale la boo xam ne nekk na si làmb daan bëre ay mbokkam yaakaaroon ko AVC dal ko te itam ay mbokkam fi mu nekk nii faj ma te na leen tij moo tax nag yow mi nga xam ne yaay li réew mi ñu ngi lay tàllal loxo monsieur le président Macky Sall jàppaleel xale bi nga xam ne nii fu mu nga dëkk fa nga xam ne moo di ca Thiès muy xale boo xam ne daal fi mu nekk nii sonn na ba yegg ci lool. jërë ngeen jëf kon yëglikaay yi tey loolu lañu indi. fañ ko tëjee nag fa lañ koy ubbewaat muy xale boo xam ne nii mu nga nekk ca région de Thiès yaa ngi dégg di xale boo xam ne wéré di da koo dab wéré di ga ko dab nag moom moo di wàllum AVC xale bi nag maanaam mbër la moo xam ne daal 2015 la mujj a bëri ñu koy wax frontière bu mu ci jógee nag ci la ko AVC arriver dal ko moom xale boobu nag fi mu nekk nii daal ah mu ngay ñaan président Macky Sall mu dimbali ko jàppale ko ci wàllum paju ndax boobu ba tey ay mbokkam ngi faj te mbir sotteegul ndax nag doole moo ko matewul ndax am na loo xam ne nii ah ci réew mi am na ñu seen loxo jot seen ginnaaw mi am na ñoo xam ne tamit ah yaa ma gën a xam gomis day metti ci ñoom te itam wax dëgg yàlla xale bu tollu ci 23 ans ñaar fukki at ak ñett ah vraiment daal comme mu ngi koy ñaan ñu itam ñu ngi wax président Macky Sall te duñ ko yemale si yow ak képp koo xam ne danga ñuy seetaan tey dimbale te yàlla tax ngir yàlla xale bi nga xam ne nii ci làmb la nekk ba lii arrivé ko. kon nañ ko gestu rawatina waa làmb tamit laay wax rawatina le président Doudou Diagne Diéckou dinaa ko ci woo président Gora Ndoye hmm? président Pape Abdou Fall président Dieye Sène ak suñu papa Gaston Mbengue ak képp koo xam ne yaa ngi ci làmb ak les amateurs ku lu kuy amateuru làmb di dund làmb rek xale bii nañ ko gestu jàppale ko parce que tamit wéra di moom ku ne la mën a dab te itam ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yëkkati barke yonent bi parce que olof a ko wax génn golo gudd na loo si laal borom yëg ko ah, te moom olof nee na ku bokk si gétt gi naan ci meew mi te ci la bokk ci làmb la bokk di xale boo xam ne avenir la mais nag yàlla mooy tege wéra di yàlla na la yàlla yëkkateeg jàmm waaw waaw moom xale bi nga xam ne moo dëkk ci Thiès bu ñu ñëwee nag continuer ci yëglekaay yi tey seen xët yu njëkk sakaas yi nga xam ne nii daal mooy am ci arène nationale te ku ne gis na dimanche la fa amaat commencé woon nañ xaw donte jot sori mais jotoon nañu commencé mais nag calmé nañ wax ba mbir ya mujj fa yem mais yëglekaay bi ne na ban solution la ñu war a mën a yan saafara la ñuy teg ma yan mbir lañu ñu mën a def wala lu ñu mën a def pour saafara jàngoro jii nga xam ne mooy am ci arène saafara bi nag bi si njëkk pour man mooy gomis ñu jéem a yaru d'abord jéem a bañ a yore jikkooy mala ndax yenn yi pour man ki koy def wax dëgg yàlla ngeen jégal ma si kàddu gi de mais yenn yi moom dama jàpp ne ku koy def rek pour man ah yàgg mala yi du ngeen soree jikko koo xam ne yàq foo xam ne dañ la fa da ngay ñëw dagg sa billet hmm, solo ñëw toog fa ne da ngay supporter mbër war faa toog seetaan nagisement boo gisee sa ndox mu sedd naan boo amee sa crème glace match ah supporter sa mbër buñ ko daanee nga génn ñibbi boo daanoo boo boo daanee si bile ñibbi nga ne foofu ma toog man dama koy toj dama koy yàq ah loolu nes ko mën a tuddee kon loolu la ñuy njëkk a yar bi la ñuy njëkk a def d'abord jéem a yaru il fallait que ñu xam ne ab yar ak i teggin lu mu la xañul du la ko lu mu la mayul du la ko xañ yàlla mi ngi tim xam na ko diw dafa yaru muy dëgg du dafa ami teggin dafa joxe cër te mu leer la ne loolu ñu koy waxal dëgg la wallaay la sim loolu gàllaaj la ndax ab jàmbur day nekk fëli di la xel di ñaanal te du la sax xam waaye nag diw daa reew diw amul teggin amul kersa te loolu la ne lii dëgg la ci moom ah baax na bés dina ñëw de dina am bés boo xam ne du ko bokk kenn kon nañu jëkka nañu gën a xam nga yar nañu gën a yar ci suñu ay mbir parce que bokk na ci lu ñuy gën a dimbali am na loo xam ne bu ñu fa yeggee jaratu ko suñu yeggee foo xam ne la force de l'ordre yi muy police ak yooyu dañuy jàpp di dóor ak a def affaire booba kay bay wéy na mbuus parce bu ñu sañoon loolu du ci am ñoo nañ ci Gora Ndoye wax na ci commandant Thioune Gaston Mbengue ah fañ cay mujjee lañ ca wax tamit mooy li mën a nekk rek ndax nag ku xamul buur dee ñu ne la bu keroogee yow di nga ko wax li tax nga koy def bu laajee ay sanction ñu sanctionné la bu bu ëllëgee sa morom bu ko xalaatee du ko def mais nag du ñu tabax arène nationale encore une fois ñu di koy yàq gis nga édifice public li ñuy tabax fii ay arène nationale Dakar Arena bële ca jam ñaajo stade bi ñuy tabax autoroute yi ñuy tabax ak nangam ak école yeeg hôpitaux yeeg loolu loolu président bi fi ne moomu ko day dem bàyyi ko fi président Senghor am na lu mu fi defoon fi la ko bàyyi dem yoonam Abdoulaye Wade yàlla na gën a gudd fan te na lu fi defoon bàyyi na ko fi dem yoonam nekkatul président te loolu ñun ñu ngi koy jëriñoo ba tey la preuve grand théâtre a ngi nale bi mu koy tabax man fi la ma fekk ñu bëri dañ doon yàq la nangam sanga mais ana grand théâtre tey nekkul saal boo xam ne nii ñëpp a ngi ko ñëpp ngi ciy sant yàlla Abdou Diouf président de la république tamit kazalika naka noonu ah am na lu mu fi defar ñu ngi koy jariñoo Macky Sall mii tamit président Macky Sall bi fi nekk tamit li mu fiy defar ëllëg da ko fiy bàyyi ndax du fi nekk éternellement dem kon yooyu nga xam ne nag ñoom dañ ko fi bàyyi dem ñun ñu di ko continuer di ko jariñoo wala suñuy doom wala nangam yooyu nañ koy sàmm infrastructure kenn du koy yàq waxuma sax infrastructure maanaam yàq moo baaxul bokk ak yàq nit du yàq te di ko tey yaa ngi dégg loolu mooy wax ji bu nu continuer ba tey ci mbir moom bu ñu ci jógee Malick Niang ñëw ñu si combat samedi bi war Sa Thiès Moussa Ndoye nee ci mën a dégg ñoom ñaar daal ay guerrier lañu nee ñaari guerrier ñoo war a bëre loolu la wax moom parce que nag xam na leen parce que daan na Sa Thiès daan na Moussa Ndoye moom Malick Niang kon war na mën wax si ñoom Moussa Ndoye open press na ba pare nee na maam nee pare na ci bëre ak ci xeex loolu la wax Mame la borom top 5 diggante mag mbay guy gi le 4 juillet ah défaite interdit la yëglikaay bi wax waa pour ñoom ñaar ñëpp défaite moom baaxut ci ci kenn ku mu ci arrivé dina métti ci yow waaye li ma waxoon la may wax mooy Euh, mamballa Balla euh, mbay guy gi na xam ne Mame Balla lay bëreel Mame Balla tëlewul bëre telewul bëre de te gis nga fi mujje am na xale yu mujje bëre daf leen a daan du doole kese koy daan déedéet kese doole kese mbay daanut Mame Balla de Mame Balla daa mën a bëre te néewut doole te niñ ko man bi ma koy mujje gis gis na xam naa ne kii mu ngi liggéey te am na lu mu bëggaat si làmb kooku nag kon am nay ambition kon kuy bëreek moom na nga ni sa xel de yow Mame Balla tam xamal ne mbay Gouy Gui xale la boo xam ne mu ngi ci aw yoon te boobu ba tey gis nañ ne lu taxaw ci kanam da koy effacé jàll ndax am na lu mu bëgg te na fu mu bëgg a yegg am na lu mu ñam te loolu mu ñam bëggut cee dellu ginnaaw kon yéen ñaar ñëpp laay waxal combat ku ci ne na ci bàyyi xel ni promoteur bi ko tëg muy Assane Ndiaye suñu soppee bu ñu continuer ba tey samedi passé ku ne xam ne Vox Arena moo tëggoon Franc Tyson 2 Tyson 2 ñàkk yëglikaay bi xëy tey di laaj ah yan perspective pour Tyson 2 maanaam fu mu war a awaat ak yooyu ah làmb jaa ngi fi bëri yaa ngi bëri Tyson 2 bëriwul defet bi ma ñetteelu défaite te am na pile de 15 victoire kon kooku defe naa ci champion yi la bokka ah. day bëri jiwaat rek ay mbëre ngi fi waaw yoo xam ne nii moom moom combat diggante moom Modou Anta dañoo ñàkk ñoom ñaar ñëpp a ñàkk pourquoi mënuñoo bëri waaw ñoo ñëpp ay ko yeneen combat yoo xam ne mën na mën na ne yu baree baree bari yoo xam ne Tyson 2 mën na ko bëri parce que bon euh, ki ko daan xale la boo xam ne mooy lool xale bi ko daan nag yëglikaay bi ne ne ku koy arrêté ndax mu ngi ci 10 combats de victoire moom Franc waaw ki koy arrêté la xam na ne faw mën a ngoo liggéey faw mën a ko wu ko moom Franc loolu moom xam naa ko ay waxi kese kese kese arrêté wul Franc de non non non dafa liggéey bu sérieux ndax nag dafa la muy def def ci sérieux loolu na leer moom Franc loolu mooy li ñu teg suñu bët nun bu nu continuer ci yëglikaay bi ba tey moom sunu làmb mu nuy xamal ci weekend bi ak rawatina dimanche la 27 ku ne xam na ne arène nationale fa la Mohamed Diop di woote borom jaay mos production bébé julde Youssou Ndour yemuñu ca beneen combat boo xam ne nii da ko fay day am ci la 27 boobu mbuur lay amee assurance ak ki nga xam ne moom mooy Gambien. Sidi Diakhaté moo fa jaar suñu papa Sidi kon Dakar Mbour nar naa xat axe boobu ci weekend bi Ahmed Dem moom mu ngay wax ak ka nga xam ne moo di Valdo neen retouram dina explosif ba ñu yegg ci ak jàmm yàlla nañ ci yegg ak jàmm loolu soreetul bu nu continuer les arènes la ñuy dem rëg-rëg franc ba ci Serigne Ndiaye 2 mbëri simple yi seen taxawaay fi nekk nii technique compétition physique explosivité lii yëpp a ngi ci ñoom parce que loolu lépp boo gisee ñu am ko boo gisee ñu am technique bu bëre am compétition bu doy am physique bu doy macha allah explosif li leen ko may mooy lit simple bi ñuy bëree la ñoom mbër yooyu muy Tyson 2 ndax safurla du moins muy Franc muy rëg-rëg muy Serigne Ndiaye 2 ñoom Obali ah ñoom Doudou saane ñoom Touba Kouta bu may lim du ma fi jógee ñoom mbër yooyu yépp di bëre lit simple commis maa la ko wax ba ci tóoni mi dëkk kër mbir daan leen fi mu ne ci làmb dina jafe de te dañoo bëri léegi ci lit avec frappe bi parce que parce que xam la moo ko indi fi mu nekk nii weekend bu jot foo dem ci Sénégal lit avec frappe lit simple baa nga fa mu mbër yi bëri moo tax nag fi mu nekk nii kon mbër yi nga xam ne dañoo jàpp ne frappe bi kese la ñu war a dafa yem ca bu ñëboo dem ci àll bi de surtout xale yi dem compétir yi parce que buñ ko deful dañuy am problème la preuve ngi koy wane boobu ba tey koo ci jox mbërum avec frappe da koy daan jéggi ko du ci sonn dul saane am na combat bu ñu ko joxoon fii moo xaw ma euh, rhinocéros la xaw ma nu mbër ma tuddati ah tànk la ku dóor jéggi ko gis nga Franc ak ak Tyson 2 bër ki dem gis nga rëg-rëg fi mu jaar combat mu mujj digganteem ak Gris 2 essiant yi dégg Serigne Ndiaye gis nga combat mi mujj avec frappe digganteem ak Libidor donte ko ko mbëru simple la ni moom xeex la jeexe ba ci Libidor boobu dañoo naqaree bëreel naqaree daan parce que dañuy compétir te boo dee compétir chaque jour Gomis il fallait que nga am xam-xam bu bëri il faut nga explosif loolu moo ci ne il faut nga am doole loolu mooy problème bi te dañoo fees dell fi mu nekk nii li affaire frappe bi waaw boo bëgg te bëri ak ñoom nooy def mënoo bëri gis nga Toné xale bi mu doon bëreel bërki dem ni mu ko def xale bi mu dó bi mu dóoree Toné dafa daw dajeeg moom xale bi wut fu mu jàpp Toné na ko rat sol takk ko rek ëñ dóor tànk ànd ak moom sotti ko làmb ja jeex <laughs> il faut ngeen compétir de te mbëri simple yi dañoo bëri parce que euh, weekend bi day euh, exemple weekend day jot gaal gi di dëgg ah nga dem Mbuur fekk fa ay làmb dem Joal dem Fatick dem foo dugg fekk fa làmb ñoom ñu tasaaroo di bëre léegi nag ñooñu di bëre chaque jour boo leen indee ci avec frappe bi sam waay xam nga ne mbër mu fi ne di am di xaar benn combat ay juróomi weer ñu la jàppee yàgg yàgg ñoom du doon combat nañ waxante dëgg léegi to kese naxul yi béy loolooy li am loolooy am de looloo nekk de franc valeur sûre la Amadou Côté Diop moo ko wax wax na dëgg valeur sûre la de ci li affaire frappe waaw franc loolu moom ku ko waxul joxoñ ko waaw waaw yëglikaay bi ñoo di ci moo tax Ambroise Sarr tamit coach équipe nationale wax na ci de nee na ñoom nee na mbëri simple yooyu dañoo maîtriser il maîtrisant les fondement les fondements les waa ne non non les fondamentaux de la dégg nga fondamentaux yi la ñu maîtriser parce que li tax mooy fa ñuy jaara tax fi nekk nii chaque jour ñu ngi bëri loolu mooy li nekk Bafa Gueye coach su Fatick Cheikh nag nay gu ma fal waxtaan nee na daal dinañ liggéey ci seen équipe boobu pour rejoindre l'équipe xam nga ah, xoolaat ko taxawaay baak yooyu loolu nag am na solo ndax Fatick moom daan ngeen tee làmb ji fan yi moom su drapeau sur la moom da ngeen cee nelaw ren fan yi yéen ngi ciy nelaw fi nekk ni moom dëkk ko yore nun waa njaareem jaw du gosaas nga dëkk gomis bokkoo région de Diourbel kon ñun ñoo tee làmb ji fi mu nekk nii drapeau sur l'état ñoo ko bi gën a mag Sénégal <laughs> waaw kas ya nga xam ne ñoom ñu am ci arène nationale tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom les arènes président Bira Sène ah nee na daal rapport yi la ñuy xaar fi mu nekk nii ci CNG waaw moom daal sanction rek loolu mooy wax ji parce que nag arène bi moom duñ nangu kenn di ko yàqu waaw kon Gomis ah loolu moo fi ñëwoon ah nañu xaar tamit ci Equivox ay vidéo yu neex dinañ leen ko indil waxoon naa leen ko démb ah, ah, Franc bi mu daanee am na lu ca topp koy juróom wax na di ngeen am yooyu yëpp leket mi daan France ca Banjul am na am na beneen dugg naa kër ci géej ànd ak supporter ñuy joogaal gaal yooyu yëpp di ngeen gis vidéo yi ci Equivox parce que yooyu genre vidéo Equivox ngeen koy gisee mais du nuyu ñi nga xam ne nii ñu ngi ñuy siifar waaye leen wax ne tamit suba bu leen ko fàtte ci àllarba ji le 23 juin ara fa nga xam ne woon di ci stadium Iba Mar Diop Fallou Ndiaye production moo fa woote ab face à face Tafa Mbër Ada Fass ah Boy doomu Jalaw Boy Niang numéro 2 nag bu nu école de Balla Gaye ak doomu Jalaw ah bébé bismi ak ki nga xam ne moom mooy papa booy jinne Serigne Ndeye Guèye ak yeneen combat ñoom xale yu ay xale daal la dajale suba te du ca yem moom fàllu lu mu ca boole mooy concert da cay amal ay concert way kette dañuy xel di way gaa yu bëgg di seetaan mbër yëpp ñuy waxante muy neex entrée payante la nag 1000 francs kese xam nga loolu neex na ñaari téeméer kon loolu ba la neexee ne yomb na ba bëgg ba yoggi ca lool loolu la Fallou Ndiaye def mu mel ni ki nag Fallou mu ngi innové loolu lañ soxla si làmb Fallou Ndiaye borom Ndiaye production di Mohamed Diop mi tëgg dimanche tamit ñu ngi koy ñaanal mu génne si ak jàmm suñu père garçon tamit ñu ngi ko ñaanal li mu tëgg sa samedi yàlla na ci génn ak jàmm parce tamit moom li may wax rek moom ah euh, tey ci làmb euh, monument la ci loolu la yàlla dogal yàlla na gën a gudd fan di ko ko ñaanal di ko ñaanal képp kuy doomu aadama yaa ngi dégg di wax ne kan daal weekend bi dina neex trop ndax entre Dakar ba mbuur ba ci yeneen kii foo ne làmb daf fay am kon Gomis dañuy joxan dig daje rek suba incha allahu rabbi mais di nuyu ñi nga xam ne ni ñoom ñooy waa Petersen yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp du ma leen fàtte ñoom ñëpp maa leen di ñaanal jàmm di ko saxu si ñoom ah rawatina mbër bu ñuy wax min gay ki gis nga lakos bii ma sol dem dama fa jaar rek bu ne ma am moo ma jox lakos bii mbin ah Euh, di ko nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax di doomu ngu ñaan di mbër parce que mbër yi noonu la ñuy def ak maanaam ah, souvent ñu nangam sangam parce que li tax xëy na mooy yàllaa def ñu soppante dara indiwu ko lu dul liggéey bi kon yàlla na yàlla gën a def jàmm Sénégal xam nga combat yi taxaw mbër yi bëre jàmm ne ñuy di nuyu tamit les reporters yi nga xam ne ñoo nekk ci presse en ligne bi maa ngi leen di wax mention spéciale kontaan si ñoom ñëpp ñëpp ñëpp yàlla na seen jàmm yàgg di nuyu suma jigéen pël bu rafet moom itam di ko wax mention spéciale taxawaayam rafet na trop jigéen ju mën góor ku nangoo dóor waar pël maa ngi lay bégge bu baax a baax di nuyu tuy tamit ku mel ni ma Dia bu Kewel Info nuyu naa ñëpp ñaan ñëpp jàmm gomis ba demee incha allah rabbi